que ne li jàppee Ousmane Sonko li ko jàppee nii jotewul dara dara absolument rien à voir avec la première procédure où il a été condamné par contumace loolu dama bëgg mu leer également ci bopp nit ñu nit ci ñu ngi ci débattre di ci wax il a été arrêté pour autre cause Ousmane Sonko li ñu ko jàppee leneen la nekkul dañ ko jàpp parce que contumace la non le parquet du moins l'autorité l'État avait la possibilité de la faire mënoon nañ ko def bu yàgg parce que la décision est devenue définitive toutes les formalités de publication def nañ ko le parquet n'a pas opté procédé à son arrestation parce qu'on lui tendait une perche pour se constituer prisonnier c'est pourquoi on l'a pas arrêté pour les faits pour lesquels il a été jugé devant la chambre criminelle et condamné à deux ans d'emprisonnement ferme avec contumace fii li ñu koy jàppee mooy appel à l'instruction mooy sàcc ak téléphone sàcc téléphone mooy loolu lañ koy jàppee donc contumace bi ba léegi dara changé wu ci dara yëngatuwu ci contrairement à ce que lu nit ñi di wax